mardi 26 décembre 2024 Fitch ci chaîne préférée sen TV ñu àdduwaat rek suñu cadeau jëmale ko ci lu metti lo xamné Sénégalais yi duñ ko mës faté muy 2021 2022 2023 muy at yo xamante ne ñi ci dé ci askan bi rawatina ñu bokku ci parti passif rawati ñi doon xex seen ak ak seen yelleef bëgg rek manam Sénégal jub ba faw bëgg ñi nga xamné ñoñu jité ñu di ñuy wax dëgg bëgg tamit ñi nga xamante dañ leen dénk nguur gi ngir rek ñu sàmm ñu yat bañ leen jox ngir ñu sàmmee ñu ko ñu bañ ko soppali ku ko yat di ñu dóor di ñu buntu xatal motax nak kaddu yooyu nag Imaam Dramé yëkkati na ci ay kaddu maanaam kaddu yu diis yoo xamante ne yu am solo yoo xam ne képp koo xamante ne sénégalais nga nga am tuuti tuuti tawxiid am tuuti yërmande rek di fàttaliku ne bis dana ñëw nga janoog sunu boroom mu daal di lay atte say jëf waaye di nga wéet sa boroom ba mu mel ne yow kese la bind loolu lépp ku ko dul fàttaliku lu la neex defal Sénégal nag toll foo xamante ne jàppoon nañu lii ñuy dund Macky Sall ak nguuram du ñu ko teg mukk Sénégal nag jàppoon nañu ci jamonoy Senghor Abdou Diouf maître Abdoulaye Wade ba ci Mamadou Diam mi nga xamantene def nañ ko lu ne ci Sénégal musuñu japp ne ci en 2021 2022 2023 lu ni mel ci politique rek rek rek Sénégal dana dund lu ni mel Macky Sall nag dafa mel mom moñu njaboté mom lañu jital ci lépp li nga xamantene moy Sénégal waye dafa mel ci biir njit gi dafa jeng mbokki ñu tewlu imam Dramé. wa Pa Ousmane at mii nag moom buñ ci waxé rek. mooy bokk na ci at yi gën a métti ci histoire du Sénégal. atum 2023. 2023 ndax. maanaam damay wax ni 2021 2022 2023 amul lu ko gën a métti at yooyu ñooy bokk ci at yi gën a métti ci histoire politique gu Sénégal. Mhm. waaw rawat parce que Sénégal yi dañoo dund loo xam ni dañoo jàppoon ni mënul am Sénégal Sénégal yi dañu leen a teg loo xam ni dañoo jàppoon ni. kenn amul xolu teg ko sa peuple ndax li ñu yàlla suturaale sax dañoo am peuple boo xam ne dañoo gën a mature seen ay dirigeant hmm. moo tax bi ñu demee ba jël li réew mi ñëpp li réew mi yëpp bokk nga xam ne nii bu dee ay armes yu ñuy jënd sa impo ak samay impôt ak impôt maire bi jaay caaf moom la ñuy dajale jënd ko hmm. nga xamni ni mi moko mom moom du kenn lu kenn mom manam li nga li ñuy tuddé état hmm. nit waru ko jël diko xexé xeexee problème te man dama gis ni tay li deug nga xam man loolu la gëm dama japp ni dañoo jël état diko xexé peuple bi hmm. waaw te Pa ñi ñu ñep japp ñu ci kenn nak da nga da nga doon jaay dorog ñima fi gis tay ci kasso yi 1000 détenus té poussière gisuma ci kenn kuñ japp ku ni yow drogue lañ jappé ci salon wala dañoo fekk nga yor yamba wala dañ la fekk ci jabari jambour wala dañ la japp ci détournement wala ñu japp la ci vol mais liñ leen jappé moy dañoo d'accordul ni ñu yoré seen réew ñu genn di ko manifester ci manifestation bo xamni ni nak. loi yi moko mayé ñen ñi ci liberté d'expression lañ leen jappé wax seen xalaat té lolu ay droit fondamental la ci sunu constitution ñen ñi ay soupçon rek lañ am ci ñom jappalé hmm. kon damay wax ni Sénégal limu dundu ñetti at yi ñun wuñ jamono Mamadou Dia parce que ñu ngi wax histoire am fekkewuñu 68 mais liñu dundu 2021 ak légui Sénégal musuko dundu ci histoire am loolu nag ben côté amna ci aspect bu positif moy parce que hmm. peuple deug bala mature il faut mu dund ay jafé jafé oui. la histoire woné demb rek ma ngi lire damay xol histoire Gandhi xam nga man Mahatma Mahatma Gandhi daf ma ñor bo xolé ni mu fexé ba libérer Inde ak stratégie yi mu doon te imusul it nango utiliser violence ma koy xoolaat di seetaan documentaire bu ñu def ci moom dafa ma gën a inspiré ma parce que boo tollee ci moment yu jafe yi. Hmm. li nga war a njëkk a def mooy nga liir démb peuple yi nga xam dañoo tolloon ci jafe-jafe yooyu nan lañu defoon ba génn ci waaw nan lañ defoon ba génn ci moom anglais yi teg nañ leen lu nekk mais mu teg ay stratégie fexe ba di def ay orientation pour peuple bañ demee ba sonn dañoo dem ba amuñu pexe dañ leen mujj libéré. Hmm. te man damaa jàpp ni régime bii fi nekk. lii ñu ñu teg. Hmm. ñun Sénégal yi mérito wuñ ko. lu ñu teg fitna lañ ñu teg. luy firnde yi. firnde yi mooy Pa Ousmane kaso. dundu doomu aadama dafa sacré li ëpp solo ci doomu aadama mooy li nga xam amul prix amul njëg mooy liberte kaddu yi Imam Dramé kaddu yu daw yaram la kaddu yi nga xamante ne kenn ku ci nekk gis nga ci sa bopp waaye kàddu la yoo xamante ne day kàddu yu dëgg kaddu yoo xamante ne képp ko nga xamante ne am nga fit rek taxaw nettali ko mooy ki nga xamante ne yaa ngi suuraale sa digganteeg sa borom. deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois événement gënu ko métti ci réewum Sénégal politique nag tax jar na lu ni mel. politique jàppoon nañ ne reyante waru cee mën a am jàppoon nañu ni yàq yàqante sax ay der waaye jàppoon nañ ay complot ki complice wala teg ndëgg sërëx ak yi ngir bëgg xañ nit ki rek mu bokk jàppoon nañu maanaam ñi nga xamante ñoo ñu jiite waru ñoo am sax maanaam xel boobu wala xalaat boobu di ko def waaye nag dafa mel ne Sénégal ci jamono ji lépp a kenn ku ci nekk yaa ngi xool nan ngay rawee ngir tiitaange bi nekk ci yow kenn ku ci nekk fa nga nekk sax wóolootoo ña nga nekkal kenn ku ci nekk booy wax téléphone yaa ngi xool wala yaa ngi tiit ndax ñu ngi lay enregistré wala déet. kenn ku ci nekk bu fekkee ne da nga taxaw ngir bëgg xeex sa ak sa yella moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam foo mën a ne yaa ngi ragal sax ñu jël si la. ndax it Sénégal dafa amatul sécurité ba tax na ndaw ñi ñu ci bari daal ña ngay dugg ca ndox mi Barça wala Barsaq mu doon loo xamante ne lu metti la ci réewum Sénégal askan bi la ñu dund ci événement yi mënuñu ko nettali kenn jooy nañu guddi ak bëccëg ndax toroxtaange gi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal ci njiitu Macky Sall ma ngi koy teg askanam waaye jàppoon nañu Macky Sall la ko Sénégal dimbali ba xeexal ko ba teg ko fi nga xamante ne fii la nekk tey jox ko alal ju bari caisse noire milliards yoo xam ne xiyaas tàmbale gi kenn mënu wax fan la yem alal ju bari joo nga xamante moom ak i mbokkam ñu enrichir maanaam ci ndoddu askan bi nga xamante ne ñoo leen fal waaye ñoom tamit ñu dem ba fàtte askan boobee di leen duma guddeeg bëccëg moo tax it mérité li nga xamante ne moom la Macky Sall di teg askanam askan bi nag dafa mel ne ñoom ñoo war a taxaw tem xam ne ñoom ñoo faloon Macky Sall ci ay carte waaye olof Ndiaye di lii bu saa su nekk ne ku fàtte la la fal sa folliku du wees Macky Sall nag dafa mel ne dafa fàtte yàlla waaye fàtte na askan bi population sénégalaise bi nga xamante ne ñoo jógoon ci 2011 maanaam di ko xeexal ngir aar ko ci maître Abdoulaye Wade ak waa PDS yi nga xamante ne dañoo taxawoon temm ngir xaañ ko ngir mu bokk ci élection yi waaye taxawoon temm ngir tëj ko ba tax na mu dem làqatu Touba ci Cheikh Alaaji Baara Mbàkke Falilu yàlla na yàlla lokk yokk leeram te taas ñu barkeem kooku daal mooy ki nga xamante ne moo toxoon digganteem ab Abdoulaye Wade ba tëju ko ak askan bi nga xam xamante ñoo ko porté dugal ko ca pale mu mujj nag palais boobu soppaliku nag doon loo xamante ne enfer la ñu koy dund ci Sénégalais yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi am naqar ci nguuru Macky Sall